je suis euh, Abdoul Wahab donc euh, man la président association nationale Human Impact euh, tey nag dañoo woote woon benn daje pour wax ak jeunesse bi. mën nañu xam lan bi. li waraloon daje bi tey jii ci tënk mooy waxtaan ak jeunesse bi diisoo ak ñoom ci expliciter leen expliciter leen ak sensibiliser leen. ci la fekk ñoom am nañ potentiel ak capacité yi nga xamante ne suñ ko gëmee ak jëfandikoo ko mën nañ tey di développer réew mi mais aussi mën nañ développer ñoom seen bopp ci wàllum éducation ci wàllum environnement mais surtout ci wàllum entrepreneuriat ndaxte tey jii nii mën naa wax ne ci jeunesse ci histoire wu ci jeunesse bu Sénégal mos am yëpp ñun suñuy jeunesse moo tombé ak année yu gën a prolifique ci Sénégal jamono ji la Sénégal ëpp si donc tey jii nii jeunes yi war nañ mën a am conscience ci loolu ñu initier leen à cette connaissance afin que ñoom ñu mën a jël seen destin en main. ndax seen liggéey bi nguur bi mu ngi leen ci jàppale. Euh, euh, jotewuñu lëkkaloo ak ñoom mais incha allah rabi c'est prévu ndax état bi ñun ñëpp ko bokk ñoo ngi ci. Euh, ban année association bi. association bi Human ñoo ngi koy taxawal en mars deux mille vingt

am nañ conscience ci ressources naturelles yi nga wax mais am na beneen jeunesse bi nga xamante ne xamaguñ ko donc tey jii porteur de voix yi état bi moo leen war a sensibiliser pour ñoom ñoom it ñu xam ne xew ñu bokk ci xew parce que tey jii nii soo gisee ne jeunes yu bëri di jël tey jii yoonu gaal bi wala dem bitim réew ci dëkk bi nga xamante ne amul pétrole amul or te pétrole ak or ñoom yi ñuy yaakaar ñu ngi koy yaakaaree ci ñun suñu société loolu noonu yëpp ñàkk donc tey jii nii jeunes yooyu noonu yëpp ci dans le cadre de activités dañu leen di sensibiliser accompagner leen ba pare expliquer leen ni que tey jii nii fii ñu ne Sénégal war ne am na ay ressources yi nga xamante ne ku nekk xaj na si donc jeunesse bi rek tey jii loolu lañ leen war a inculquer quoi.